xew tey jii ba ñu woo mbooloo mi nii mooy euh, dañu am koo xamante ni dañu sekk ak moom loo xamante ni mooy euh, dañ doon liggéey ak moom mu nekk suñu partenaire mu am mu amoon ay partenaires yoo xamante ni dañ doon jógee ci réewu arab yi di ñëw fii di tabax ay mosquée di tabax ay mosquée ginnaaw bi ñu ñëwee nag euh, jëfandoo ak ñun ñu tabaxal ñu suñu mosquée ndax jamono boobu ñun dañoo bëggoon ku ñu tabaxal suñu jumaa ñoom tamit partenaires yi dañuy tabax dañu wër di tabax ay juma ah, ki nga xamante ne moo ñu boole woon ak moom ba ñu tabaxal ñu biñ paree moom dafa continuer toog ci place bi ne moom moom place bi léegi moom nekkatul daf ñoo boole mais moom moom place bi kooku moo ñu tax a daje fii ñun ñëpp tey ji waaw kooku mooy euh, alaaji Ndiouga Dieng kooku mooy alaaji Ndiouga Dieng mbuur yëpp xam nañ ko mbuur yëpp xam nañ ko ndax li mu am ak ñun am na ko waa mbuur yëpp quartier yi nekk mbuur yëpp waaw euh, kooku la. mu def fii. li mu def fii mooy euh, ginnaaw bi ñu liggéeyalee ba tabaxal ñu jumaa ji ba partenaires yi moom pare nañ ci moom dafa ko ne des fii ak njabootam doyul muy dagg euh, bayal bi di ko jaay. bayalu jumaa ji di ko morcelé ba 18 parcelles la ci dagg di ko jaay loolu daal moom moo ñu métti te doyul mooy kër gi nga xamante ni moom laa jaakaarloo tey douche bi commission bi njëkk a tabax. ci kër gi la nekk mu jaay mu jaay foofu ba waa kër gi tey jii foofu la ñu def seeni toilette est-ce rafet na ah jumaa ji la woon fii kër gii ñu jàkkaarloo yaakaar naa ne jullit sax waru ko woon a jënd ndax am na loo xamante ne jara jaru ko moo tax tey jii ñu taxaw fii nag di di ko dénoncer di wax ak président de la république mu ñëw dimbali ñu ci kii ndax sonal na mbuur yëpp di wax ak monsieur le maire. mu ñëw dimbali ñu ci kii ndax bëgguñu xeex bëgguñu xuloo jàmm lañu bëgg ndax boo waxee jumaa jàmm fa ne julli jàmm yàlla ñaanalante su amee koo xamante ni nag day dox pour di récupérer place jumaa yi di ko def ay terrain di ko jaay ah ñu ngi wax nag bëgguñu problème te lu kenn mën nag ñaara ko dax mënul jëlee ay famiyam fenn ba ñëw ëpp waa quartier bi ku xool lii xam na quartier bi pare nañ bëgguñu problème ñu ngi avertir nag ñëpp looloo ñu tax a daje fii ndax ku dagg ci bayaalu jumaa ji dix-huit parcelles bàyyiloo jumaa ji dara ñu wax nga ne même jumaa ji sax bu ñu waxee nga def ko kër kooku noonu lan la bëgg lan moo ko taxoon a jóg bam ñuy booleek partenaires yi nekkatul tabax jumaa xanaa ñaanal nañ ko ci immigration bi defal nañ ko lépp du dem toog këram këram ak fii cinq quartiers la pour mu jóge foofu ñëw fii cinq quartiers kooku war na xëccoo dara ci quartier jàmbur magasin beeg état bi famille ñoo dëkk ci kaw magasin yi da koo tabaxoon ne institut islamique la koy def sampal ñu tableau ba ñu am confiance ñu tabax ba pare mu jël tableau bi yóbbu commencé koo joxe location ay cantine depuis loolu nag location boobu ci kan ci poosam moom ci poosam lay dem darawu jumaa ji demu ci jumaa jee yor léppam ak nit ñu baax ji ñi ñuy dimbali ñoom ñoo ngi dimbali ci jumaa ji te jumaa ji toll na foo xamante ni tey jii ñun quartier bi jaral nañu lu ne parce que néegu yàlla bii la ñu am te lotissement bi moo ñu ko joxoon nag moom jëndul kër gi jëndul terrain bi lotissement bi moo ñu ko joxoon ndax chaque lotissement ku ne xam ne li muy àndal dina ànd ak école dina ànd ak juma dina ànd ak marché dina ànd ak li karti war a àndal loolu lañu toog tey jii yor suñu yëf nañu bàyyi ngir yàlla ak yonent bi te dem jaamu yàlla mag la mag am na aat boo ne bu fa tolloo day toog jaamu yàlla ñu koy ñaanal ndax dara jarutul dara fi mu toll ci àdduna ñu ngi koy wax nag bugguñ li muy nekk mag sax moo tax bugguñu dara ak moom lu rafet rek lañ doon dox ak moom ba egg fii li yeneen quartier nag egg ak moom. ñun bëgguñu ko egg ak moom ñun yëg nañ lépp xam nañ lépp ku dem ba toog ak commissaire xam nañ wax ji nan la war a demee ñun li ñu bëgg mooy jàmm mu bàyyi ñoog suñu espace ñi fiy jaayit ñu jël seeni birig ak lu ñu fi am dem toog bàyyi ñoog suñu espace ñu dañoo bëgg a miire fii fermer ko continuer nag tabax fi luñ fi bëgg a tabax ndax fii war nañu am morgo war insi islamique bi mu ñu naxee woon ba tabax magasin yi war nañ ko am waraat nañ am ay toilettes war nañ fi jëmbat ay garab ndax quartier bi màgg na fi ngeen jullee yéen xool ngeen jumaa ji nu mu xatee fii ñu taxaw yëpp da koo borno fan la ñuy jëmbat garab fii jullit war na taxaw di jënd fii fii di xëccoo ak ñun ñi waa jumaa ji est-ce que jullit war na fi jënd nañu xool lu jaadu ñu koy def lii alalu àdduna dara jaru ko fi la mu am ëpp na lii nañu bàyyi ngir yàlla yonent bi ñu ngi waxaat président de la république moom mi nga xamante ni lu dul yoon rek mu ñëw regle ko ñu ngi koy ñaan nag mu ñëw régler ñu lii gis nañ ko nag moom politiquement muy ànd ak koo xamante ne yaakaar na xëy na su faloo dina ko jox fii kooku du dox ci loolu tamit ndax kooku su xamoon ne lii lay def sax du ànd ak moom waaw loolu laay wax waaw